bëri génne nañu leen ci kaso yi fan yi loolu nag indi woon na ay wax yu bëri ñu ci bëri ci sénégalais yi doon sampap laaj ci yan condition lañ leen bàyyee ñu génn ci kaso ya laata ministre bi ñu dénk lépp jëm ci wàllu justice bi di ci àddu démb. lu mu wax daal lu leer mooy di ko ñoom bàyyi ñu leen ci seen coobare yoon moo leen bàyyi euh, yoon moo leen bàyyi ndaxte cas par cas du du du libération collective déedéet du ñu libéré ku nekk. en fonction de ta situation judiciaire. libération yu bëri yi lim ci jublu mu di fexe ba jàmm gi delluwaat ci réew mi waaye nag ñiy bëri di samp laaj ndax Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye dañu koy am Mamadou Sy Albert di ci xamle ne tontu ministre ba doyu ko. wane ne gouvernement bi am na yéene apaisé mais wante ñuy bàyyi euh, prisonniers yi mooy juge bi ak procureur de la république sos na nag juge d'instruction ak procureur génn na loxam. ci euh, wàllum yoon donc loolu aussi euh, lu leer la. beneen tontu ministre mi nga xamante ne doyu ko mu di li jëm ci wàllu enquête jëm ci ñetti doomu aadama yi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan ci manifeste yi ñuy weesu. ci loolu nag daanaka waxu ci dara ndax ñu ngi doon xaar mu wax ñu ana fan la enquête yi toll. lu ëpp ñetti téeméeri doomu aadama génn nañ leen ci kaso ba alxamis ba tey yeneen i yi nag yoo xam ne jamono jile ñu ngi euh, càmbar seeni ay dossier mën nañ leen libérer filer ak ay fan.